mu dem mu dem mala mala aja mbari mala aja aja waaw aja jeex na tànk aja nànk rek nànk rek aja le président Ousmane Sonko va faire une déclaration donc on est là donc on la là donc on la là pour patienter le président Ousmane fii lay defee li nga xam ne moo di as discours xamuñu ndax day dellu fi nga xam ne moo di ci as tërëm xamuñ ndax ah, fii lañ koy ah, arrêté xam nga. président la war a def déclaration. waaw le président Ousmane Sonko va faire. président Ousmane Sonko mi nii. je de choisir mon itinéraire. Je ne passerai pas par la corniche parce qu'il y a des milices de Macky Sall sur la corniche, armés jusqu'aux dents. je passerai par l'avenue Cheikh Anta Diop et j'ai le droit. Et aujourd'hui, personne ne m'imposera un itinéraire ou alors il va falloir qu'il prenne ma vie ici. Je vous remercie. noonu dégg ngeen euh, discours bi nga xam ne le président Ousmane Sonko wax na en euh, exclusivité fi nga xam ne moo di euh, ci Feeling Dakar TV Ousmane Sonko. le président Ousmane Sonko def li nga def na li nga xam ne daanaka moo di as discours euh, nee na dafa am ay ministre wala ñenn si ñi nga xam ne dañoo armé wu nekkee fi nga xam ne moo di ci corniche mi te ne moo di as itinéraire yoonu UCAD lay euh, xam ne moo di ci euh, fi nga xam ne moo di diwaanu tribunal moo nekk discours bi nga xam ne Ousmane Sonko tenir ko moo ko wax léegi gis ngeen ko dans les images ko Ousmane Sonko am ay ministre wala ñenn si ñi xam ne dañoo armé wu fees dell fi nga xam ne moo di daanaka ci diwaanu corniche bi moo tax mu ne fee lay jaar fi nga xam ne moo di ci diwaanu université Cheikh Anta Diop bu Dakar grand daam loo ciy wax. dafa am lu ma bëgg wax il faut que force de l'ordre yi respecter le président Sonko nit ki am na liberté am jaar fu ko neex man tey bu ñu waroon yoon bu ma neex laay jaar lu tax ñu ngi koy di ko naan jaaral ne. donc dañoo ñëwaat ci même problème euh, Ousmane Sonko euh, fu mu war a jaar ak fu mu war a jaar donc ci problème boobu lañ nekkaat. parce que ñoom ci foofu la ñu dëkk ci foofu la ñu la ñu dëkk il faut ñu wax ne dëgg. ci menace la dëkk il faut que mu bàyyi ko ñu bàyyi ko mu jaar fu mu war a jaar on peut entrer pour jàmm am. Ah, donc euh, euh, gis ngeen discours bi nga xam ne le président Ousmane Sonko tenir na ko li ma waxoon rek laay waxaat nee naa la coow benn lay doonaat affaire la problème mu yoon la te gis ngeen ex en exclusivité gis ngeen Feeling Dakar TV nu mu leen ko joxee mooy discours bi nga xam ne le président Ousmane Sonko tenir na ko mooy que ni kenn du ko jëlal yoon bi mu war a jaar fi mu war a jaar a jaar. université la choisir pour jaar fa parce que dañ ko signalé ne ko dafa am ñenn xam ne dañ daanaka dañoo nekkee ci côté corniche bi moo tax Ousmane Sonko neen du fa jaar am ngeen ko en exclusif fi nga xam ne moo ne ci Feeling Dakar TV donc patienté connecté du ma sori fi nga xam ne moo di oto Ousmane Sonko bi nii laa leen koy euh, ba mu jeex tak tak tak tak le président Ousmane Sonko va faire un discours euh, français avec euh, les xonk nopp Ismaïla Manja dama la papa ma la. you see. ma la that is president ACC. that is president ACC. ay sàll bi. this president ACC. je tiens à tenir euh, toutes les opinions nationales et internationales à témoin. Je suis un citoyen sénégalais qui a été convoqué au tribunal. Et tout citoyen a le droit de se déplacer librement dans la ville et de se choisir un itinéraire. J'ai décidé de passer par l'avenue Cheikh Anta pour rallier le tribunal. Je ne passerai pas par la corniche parce que la corniche est remplie de nervis, de Macky Sall armés jusqu'aux et qui sont prêts à attenter à notre vie. Je ne passerai pas par la corniche, je passerai par l'avenue chez Ante Diop. Si la police et la gendarmerie m'empêchent de circuler, que l'opinion nationale et internationale retienne que c'est la police qui m'a empêché de me rendre à une convocation du tribunal. Je vous remercie. votre message pour la communauté internationale, surtout la communauté internationale, c'est de le dire, c'est ça le Sénégal. Le, la secrétaire d'État, la sous-secrétaire était ici il deux jours. Et je suis sûr qu'on l'a reçu juste au palais et on lui a caché le véritable visage du Sénégal. Mais le visage du Sénégal, c'est la dictature de Macky avec la répression. donc euh, commencé nañu euh, di daaxaat ñi nga xam ne ñoo di daw ñun sax dañoo mujjee euh, ñun ñëpp dañoo mën eh. a sax dañoo mujjee dañoo mujjee tëlaat. non bul xaañ garaaw bul xaañ. ay waay ay waay bi yaay dañuy door day dóor xeer bi commencé nañ.

Allez, allez, allez, là, là, là, là. Là, le gars, là. Là, là, là. Là, là, là. Là, là. Toogaay laale laale laale laale laale seen yére yëpp am am baax laale laale laale seen donc gars yi gis ngeen euh, ni mu demee ah la nga mos a commencé naa safari maa ngi ci oto Ousmane Sonko waay yàlla ñu yàlla suturaal ay ah, yàlla del déglu del xool Feeling Dakar site jox information yu leer